usine bi mën na produire lu tolloog deux cent cinquante mille tonnes at bu jot. tey ji nag mu mel ni loolee doyatul tax na ba jafe na ngir rek ñu daal di exporter si yeneen réew yi daal di wër Sénégal. ça surtout mooy quintessence bi mooy ICS pour mu normalaat ba ñuy ba mu ñu dégg fa ñu doon dégg il faut que Sénégal récupérer ko. yokk si tamit ne ICS fayatul impo wala sax TVA nguuru Sénégal. ICS boobule. yoreel na état wu Sénégal 200 milliards 200 milliards ci redevance te du nekkul nekkul nekkul bor boo xam ne ay boru boru yaa ma neex la de dañ ñu ko yoreel ay koppar yu ñu yu ñu yoreel la. seen bëgg-bëgg mooy état fexe rek ba jëlaat doxalinu entreprise bi teg ko ci ay loxoom ngir rek ñu mën a ubbil bunt yi secteur privé bu Sénégal.